waaw xam nga jamono bii ñu toll li population bi maanaam li jigéen ñi dépassé góor ñi mën na ñetti yoon ndax boo xoolee ci ginnaaw bi mu amee euh, mënd mi mooy mbëkk mi daal nit ñi di jël gaal di dem di ci dee ciy góor dafa bëri ba góor dafa am rupture dafa am dafa manqué daal moo tax jamono bii jigéen bu ci amul bayre dëggantaan euh, doo gis ku la ku la takk waa daanaka ñun li ñuy gën a jigéen ñi gën a sollicité loolu lay doon sëñ bi jëkkër ñu bëgg jëkkër mu jafe leen gis ñoo xam ne sax nit day ñëw ba joxe may gu njëkk du ñëwaat waaye ñëw ba waxtaan si ba ko jigéen ko wax ay wax ay ay mbokkam ne leen ñaan ñaan si nañ ma bu ko defee mu tas yaakaaram loolu fi ne dañ ma koy jàmbat ba sonn waaye képp kuñ ci cangat kuñ képp kuñ ci jox cangaay ñetti cangat lay doon incha allah. bu fekkee ne jël na càngat rek suñu borom dana ko may borom kër am na sam ay cuuraay yu ñuy joxe yoo xam ne daan ak sunguf boo xam ne daf koy sangoo di suuroo cuuraay bi bu defee dafay bu tëjoo wala rab tëj ko wala mu ñàkk beere dina ko am incha allah euh, waykat yi rab daf leen yàpp ndax ni ñuy solo ak daanaka bu ñu defee concert lu ne ñëw nit ki ma boo wootee dina dina ñëw nooxoor dana ñëw rab dana ñëw léppay ñëw bu ko defee nag ñoom ñu si bari rab mën na leen tëj ak tam yëg seen bopp jàpp ne du n'importe quel góor moo la war a aborder loolu itam danay am euh, waaye ñun moom li ñu ciy defal nit ki moom su fekkee ne defal nañ ko rek bu ko jëfandikoo incha allah dina ubbeeku dina am borom kër. Euh, rab moom jigéen ñu bëree bëri ndax nit ni su maanaam góor mi maanaam bëggee jigéen ñi ba di leen topp rab itam bu ñu gisee jigéen ju rafet joo xam ne euh, ñoom xemem nañ ko dañuy dañ koy solo nga defee gis dañ koy géntuloo euh, dañ koy saw am na sax ñoo xam ne dañuy sawlal jigéen ñoo xam ne fim ne nii waxuñu ko sax nit ñi di ko dégg waaye àgg nañ ci rab daf leen di géntuloo ñuy sawla leen di géntuloo ñuy sawlam wala daf leen di tëj tëj bu metti nga xam ne dañuy mel ni ñu war a mel am taar mel ni ñu war a mel waaye kenn du leen doxan kenn maanaam bu ñu sax góor goo xam day ñëw ne leen bëgg naa leen xam nga loolu moom moom weesu na weesu na weesu na tëju waaw loolu rab moo koy def ndax rafet nga mel nga ni nga war a mel te gisoo sax góor boo xam ne ñëw na fëgg sa bunt waaw loolu moom mbiru rab moo koy def. waaw fu mu ne nii ñoom ñooñ bu ñu fi ñëwoon tey suñ leen defalee li ñu leen defal ñu am borom kër euh, ndax comme li ma la wax rek maanaam ñaan moom amul lu mu mënul ndax am na addis buy wax ne. Euh, laa yaddu laa yadduru laa yadduru xadduru illaa duxaa eh, amul lenn luy delloo ab dogal lu dul ñaan nit ki mën mën naa mën naa dem ba war a faar sax ñu ñaanal ko yàlla mu gën fu fanam yokk ndax hadiis bi loolu amul lenn luy delloo dogalub yàlla lu dul ñaan nit ki war naa mën a nekk koo xamante ne day dem safara ñu ñaan ko mu dem àjjana nit ki war naa mën a nekk koo xamante ne Euh, dafa naroon a ñàkk ñu ñaan ko yàlla mu ubbeeku te barakatu ismillah azam isa doye bi ajaab isa suela bi ata tur woowu ku ci ñaan yàlla loo ko ñaan yàlla defal la ko te ñun ci lañu bàkk suñu borom di ko ci kañ waaw ñun lépp lu ñu ñaan yàlla jaaree ko foofu suñu borom defal ñu ko waaw amuñ si euh, sawaruñ di ko def xanaa koo xam ne tey soxnaam wax bëgg na ko wan ginnaaw wala tey koo xam ne nii financé na si jigéen xaalis ba sonn wala góor boo xam jigéen boo xam ne góor góor bëgg na koo trompé ànd ak moom ay at ne ko dinaa la takk jëkk si ak bu ko woon ginnaaw suñu maanaam danañ ko danañ ko jàppale waaye duñ ko defal na koo xam ne ni dafay fo nekk fokat euh, wala yooyu maanaam nag koo xam ne nag soxnaam bëgg na koo won ginnaaw wala jigéen joo xam ne. Euh, ànd naag góor góor gi na ko dinaa la takk ku ñëw mën a diw dama am ko fi nekk euh, am naa projet ba pare xëy xëy kooku ne ko dama lay bàyyi bëgg a tas yaakaaram loolu moom bu ñu seetee dana ko dimbali ba kooku dana ko takk insha allah ñun am nañ ay rab comme xaj bi ñu yeew suñu kër wala xar bi ñu reew suñu kër wala nag bi ñu yeew suñu kër wala fas bi wala mbaam bi loolu mooy suñu rab du xamale ma la jinne tam boo dëggee ñu wax rab maanaam euh, mala mala mala jinne mooy rab moo tax te rab xam nga ñaare mooy gën a soxor ndax xaj day màtte xar day mbëkke mbaam day wéqi du xam la moo tax jinne su naree ak caay-caay rab bi lay yónni rabam lay yónni rab bi daal moo tax fi ne jigéen ñëpp maanaam jigéen ñi rab moo leen sonal ñii di leen daaneel ñii euh, di leen gént lu am na sax jigéen ñoo xam ne ak yu góor ñoo xam ne rab bi daf leen def loolu bon loo xam ne bu ñu bëgg sax nit ñi xam ko waaw maanaam di fooyee seen awra ba bëccëg rab daal moom day yàq bopp nit ki da koy ñàkkloo personnalité daf koy wàññi darajaam rab day wàññi barke nit waa rab moom lépp ko am te fajuloo ko dafa lay tardeel bu baax a baax a baax. waaye ñun moom ki bëgg a jëflante ak ñun ci wàllu ñaan dañ koy wax d'abord. dañ koy euh, defal istixaara bu ko defee daf ñuy wax turam ak turu ndeyam ak ay atam defee ñu xam exactement kii lan mooy jafe-jafeem lan moo ko tëj wala lan mooy problème am bu defee bu ñu ko ñaanalee ci loolu rek mu dañ sànq am na lu ma fi lu ma fi lim mooy cuuraay bu ñuy joxee ñun cuuraay boobu baax na ci cat ak ci rab bu defee nit ki bu ko suuroo bu fekkee cat la dafay denc moom ndax cat li muy tekk mooy lu sew cat bu defee ni muy def manque wala bal nga xam koy bëtt ba mu peer noo lay def nit ki waaw da koy da koy peeral su fekkoon koo xam ne sax mu ngi ci yoon di dem da koy kar mu taxaw eh, su fekkoon koo xam ne sax daa wér nit ñi mën nañ ko catu ba du jóge ci feebar te bu feebaree sax mën nañoo dem hôpital bu ñu demee cat bi topp ko ba bu ñu ko bindalee garab garab bi du ko jig allergie ko su ko allergie mën na koo topp bu dee jigéen bu rafet la ba tànk ba yàq ay tànkam wala yàq bëtam xam la wala def ko cancer wala dara ba yaram bi yàqu ndax nit ñi tudd ca taaram ay ndaw si de dafa ndaw si de dafa jekk ndaw si nangam nangam ba ca dugg ko bu dee góor la mu mën a jàng wala jigéen mu mën a jàng danañ ko catu ba fa mu demee ba nga xam ne war naa def bag day xëy xëy bàyyi jàng te doo xam lu ko bàyyi loo wala xëy dootu ci bëgg dara wala xëy xëy mel dañ koo gëlëmal lu mu jàng du ko xam loo ko jox mu mu juum moo tax cat moom yaa ngi saali musal eh, yonent dafa ne li mu ragal ci xeetam mooy cat lu ëpp ci xeetam cat moo leen yóbbu barsàq moo tax cat lu am la al aynu xaq cat lu am la képp koo xamante nii gëmoo ko rek da fekk da nga xamul danga réer mbir waaye cat moom lépp lu am la lu sax la. waa dañuy tàggatoo di ñaan yàlla wàcc fi jàmm euh, mbiru pétrole bi itam dañ fexe ba dellowaat ko Sénégalais yi lu ñëpp bokk. du alalu kenn alalu ñëpp la dafay di ñaan ñi feebar nekk hôpital yàlla fëgg seen bopp ñi faatu nekk barzaq yàlla xare leen àjjana ñi nga xamante ne nii ay waaye daw la yàlla yërëm leen ñi feebar te amul nuñ fajo yàlla may leen may leen wér ba duñ dem hôpital waaleykum salaam wa rahmatullah allahumma salli ala sayyidina abdika wa nabiyil ummi wala ali wa sahbi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi alamin